ngeen déglu MC lépp lu may wax te amul preuve. Mhm. du ma ci dugg. lépp lu may wax te suñ ma waxee lii mënuma koo teg ci taabal ji mënumaa am argument du ma ko wax. dama lay wax na la preuve bu leer. ndax képp koo xam ne rek ci Sénégal jotee naa ak yow rek tegal naa la sa preuve ci kaw taabal ji. ñas lii ma lay wax nii dañ koo taxaw Mansour Faye taxaw ne ko lii mun ko am mun ko du fi am il faut ñu nangam ko léegi nag Macky problème boobu moo ko def problème fu mu nekk nii waaye su fekkoon na Macky moom a gaayam ne soo dégloo bu baax ci biir waxtaan bi yaa Mbaye nee na ko monsieur le président mun na ko ah mun na ko ñi nga doon ànd ak démb ñuy liggéey ak yow nga xam ne ci loo nekk ñu ngi ci ak def-def yi fi nekk ak yu bëri nan ngay def ak ñooñu mais Macky tontu wu ko bëri ñu bëri. waaw waaw waaw tu as parfaitement raison mooy question yaa xam mbay bi tontu ko. yaa xam mbay bi waxu politique daf na ko waxu politique la du ma ci wax dafa tëb. mais waxu politique nga war a wax ndax lii ñu nekk politique la yow ci politique nga nekk. ñu nekk ci nangam ak nangam. ci politique nga nekk danga cee war a wax. Mm-hmm. Mm-hmm. sëriñ yow président kenn du la laaj nga naan lii du ma ci wax lii amoo loo war a bañ a wax wala lu intéressé nit ñi la danga cee war a wax mm-hmm. luñ la wax. léegi nag su fekkoon Macky rek la. sacrifié na leen dem na bu yàgg daw na ndax ñaar moo am fii mu jëm muy marok royaume la ay buur lañ ku daw dugg foofu mën nañ la làq waaye làq bi tamit assuré wut làq bi assuré wut mooy su ko Amérique soxlaa wala kon ay roseeg yooyu dañoo am doole dañ koy dañ leen koy jox far force te beneen bi tamit Macky dafa jënd Maroc ba pare jëndaat na Arabie yi ma wax la lu tax ñu bari yëguñ ko ma waxaat la Arabie Saoudite de amaan na fa jëndaat na fa kër léegi ba xamee na Maroc ak Sénégal benn lañ te marocains yi ñun sénégalais yi mun nañ ko wax ne ko jox ñu Macky mu bañ ñoom Macky Maroc dañoo investir ci Sénégal te boobaa Maroc du xool li nga xam ne moo koy yàqal kon boobaa dafay jël joxe Macky Macky xalaat loolu mu dem jëndaat arabi Saoudi kër ndax xam na ne Arabie Saoudi royaume la bokkuñ ci dara amul lu muy perte ci Sénégal parce que Arabie Saoudi investiruñ ci Sénégal mënoo feex ñoom ñoo ñuy dimbale waaye amul si si je comprends président Macky dafa jënd Maroc kër jënd kër Arabie Saoudi jënd kër Arabie Saoudi parce que Maroc la bëggoon daw pour làqatu ji xam na foofu roi moo fa am kenn du ko mën a jëli waaye xam na bu gën roi bu gën a dëgër bi mooy arabi Saoudi fu mu nekk nii gis nga li ñuy wax nii yëpp su paree xam ne yàgg dañ koo bëgg a jël si Arabie Saoudi lay dawut pour dem dund ji foofu. waaye Maroc lay dem la wax lay dem de. loolu la wax waaye seetaan leen day daw dem Arabie Saoudi ndax foofu la gën a mën a la xam Macky moo la gën a xam ni li kay xaar ci gannaawam moom xam na ko doful jinneew xelam mu ngi soog a ñëw gis nga nit su la yàlla seytaane fu mu nekk nii ba koy yàlla di may doole. dafa seytaane fu mu nekk nii dafa am doole ba mu sës waaye xam na ne koy ëllëg xam na ne fu muy mujje xam na ne ca jahannama lay mujje te dootul jeex xam na ko moo tax ba ko yàlla tegee ci àddina dooleel ko mu am doole te xam na ko Macky tamit xam na ne tey doole jëm amoon doole seytaane gi di ko sotti nit ñi xam na ne su demee ba jeexal ci président bi li koy fekk nag loolu moo ko jaaxal léegi nag Mansour moo mu fëggoon ci taabal ji ci la Macky ootee oote jaloog bi du jaloog de xam nga lum soxla soxlawul ay ay ay ay ay euh, Sonko pour mu ñëw ak pour mu ñàkk a ñëw soxlawul loolu xam nga ñan la soxla ñi muy luwee ay nit yoo xam ne dix ans dañuy wax ne ay kilifa diine lañ ñu ñëwaat sol ay garaam bu kon ñun yaa ngi dégg kon ñu fa demoon tey soo xooloon ñu fa demoon ci jaloog bi passé ci sëriñ soos ñooñu lan lañ taxawal askan bi ak lan lañ jëriñ ci askan bi ak lan lañ nekkal sëriñ ci askan bi. loolu sax doguma la sax am na sax benn sëriñ bu doon wax ne ko ci dialogue bi passé mu ne ko président dafay tëj di reye te loolu benn sëriñ moo ko waxoon ci dialogue bi mu ne ko président dafa war a tëj di dóor di reye loolu benn sëriñ waxoon na ko ci dialogue bi passé. nañ jaar ci digg bi nañ jaar ci digg bi maa ngi ñoom a yem Ahmed Khalifa Niass la ak Jamil Seydi Jamil nañ jaar ci digg bi maa ngi ñoom yem. ci politique lañ nekk. amul lu mm-hmm. ñuy bañ waxante la rek ak sànni. yaa ngi ñooñu mm-hmm. ana ana yan taalibe lañ am yu leen topp gëm leen. ak Xaadim Samb aussi waxoon na ko ko Xaadim Samb géwél waxoon na ko aussi Serigne day tëj président da ngay tëj di rey Xaadim Samb.